ngeen ko gisee voilà mi ngi noonu El Hadj Malick Ndiaye mu ngi noonu ñëwoon euh, seet si li nga xamante ni moom mooy euh, jébbal li nga xamante ni moom mooy njaalam Bougane ay jarbaatam ñoo nekk noonu jugee ba fële nga xamante ni moom mooy Mauritanie ñëw ñi nga xam di ko jébbal li nga xamante ni moom mooy seen njaal waaye Issa Malick Ndiaye comme ni ko bu Pastef mi noonu ñëw moom tamit di njëbal njaalam noonu xam naa ne dafay ñëw di jabal njaalam également ci turu Ousmane Sonko ndax Ousmane Sonko jamono yi muy wax ak yow nii euh, Babacar yoon da ko féete ginnaaw donc voilà xam naa du ñaata moom dafa ñëw ci ndigalu Pastef mais dafa ñëw également ci ndigalu li nga xamante ni moom mooy Ousmane Sonko jëbal njaayam mi ngi noonu El Hadj Malick Ndiaye bu Pastef moo nekk noonu moom la ñuy euh, moom ngeen janool noonu mu ñëw di jëbal njaalam yàlla yàlla defal ko tàmm ci barke borom Touba baax sëñ Mouhamed Maguette baax ñii dañu leen jóge bu baax jërëjëf day yëkkal nit ñi jumaa ji dafa tege Papa Abdoulaye Mbaye jox na la nee Alxaaji Papa Mansour dafa dem Makka. délégation président Ousmane Sonko El Hadj Pex moo koy annoncé noonu nee na délégation euh, président Ousmane Sonko ñëw na El Hadj moo ko daal di jiite. délégation baa ngi noonu bu Pastef. alors ñu ngi jàkkaarloo ki nga xamante ni moom mooy El Hadj Malick Ndiaye donc ñu a jël un peu un peu réaction donc s'il vous plaît c'est possible en fait El Hadj El Hadj ndax mën nañu un peu sa témoignage sa njaal ñu ngi lay nuyu. Jaxal Abbas sa njëbal njaal lan ngay sànni xarit Bougane waaw euh, comme ni ngeen ko xamee euh, tiis bu mag la bu wàcc ci euh, kenn ci suñu xarit ñu bokk tamit langue politique gi waaye tamit ñëpp xam nañ famille Seck seen way jur bi mu wuy ji àdduna yàggul dara tey bu ñu jisee aussi soxna soo xamante ne nii ñu naan mu ngi ci fleur de lage nekkoon aussi euh, femme d'affaires nekkoon xam nga doon jiite group bi nekk directrice euh, pour man c'est une perte euh, pour tous les Sénégalais waaye nag surtout pour kii nga xam ne di président Bougane di candidat di suñu xarit ñu seq langue politique gi mu nekk euh, koo xamante ne ni aussi ku amal njëriñ Sénégal la ku ku ku gëm la ku gëm Sénégal la euh, li gën a rafet wala li gën a ndaw lu ñu mën a def mooy ñëw indi njaalu président Ousmane Sonko ginnaaw ba mu mënul teew euh, ñu ànd ak délégation ànd ak le grand frère Abbas Fall ak secretaire général di Ayib Daffé ak son directeur de cabinet ñëw rek jaale si euh, comme ni ko ñëpp defee ñaan yàlla ñu euh, yéex ko fayantoo waaye ñaan yàlla tamit soxna si yàlla xaare ko aljana. Ousmane bi mu yëgee xibaar bi naka la ko dundee. waaw comme comme sénégalais bu nekk rek euh, métit la naxar la ku mën di wàññeeku rawatina koo xam ne sa genn wàll la sa soxna la. ngeen am njaboot mu nekk ku la jege ngeen di liggéey mu yor daanaka yow nga nekk ci politique moom mu yore wàllum say entreprise ak yu bu wàññeekoo. loolu day nekk lu tiis donc lu mu naqaru la comme ñun ñëpp comme ni ko senegalee ñëpp ci amee tiis waaye nag dañ koy sante yàlla ndax moom moo xam euh, euh, li gën ci jaamam mu koy def ñuy ñaan yàlla rek fa mu jëm euh, gënal ko fi mu jógee. d'accord voilà monsieur Ayib lañ ko bëggoon a xam nañ ko bëggoon laaj quand même pour recours bi naka lay mujjee donc voilà moom mooy mandataire u euh, PASTEF euh, monsieur Ayib Daffé donc voilà ñu bëggoon a euh, bëggoon ko laaj aussi donte contexte bi laaj ko mais quand même jëmoon koon nga profité ci occasion bi laajaat ko lan la ñuy xaar ci recours bi nga xamante ni déposé nañ ko ñu war a xaar war a xaar waaw ñu ngi taxaw ak nga xamante ni moom mooy suñu frère. Eh, kontaan nañ trop trop trop ci gis bi ñu la gis ah, voilà moom délégué euh, wax dëgg yàlla kontaan nañ quand même ci gis bi la gis ndax euh, voilà bi ñu nekkee ci garde à vue dafa mel ne kañ nga génn. démb naa waaw waaw. xibaar bi la la fekk ci biti wala ci non bi may génn ci ci viol bi may génn ci poste bi laa gis si Walfadjri teg ko quoi après ma kon ni ñëw fii direct mais ñu ngi sant sëñ Tuubaa baax a baax a baax jërëjëfati ñëpp xam na si diggante ak baala Ballago Seck euh, nouvelle bi ñaari xëy na ci benn côté yow am nga lu la neex waaye ci benn côté am nga lu la naqar ndax magu Wally moom moo génn àdduna lan ngay wax Wally sunu mag sunu lépp wax dëgg yàlla di ko jaal suñu bopp di ko jaal ahlu murit di ko jaal waa Sénégal di ko jaal faramaayeen yëpp dëgg yàlla di ko jaal waali mais bu buñ ko jaalee waali suñu bopp lañ ko jaal ndax suñu mag la ñun ñëpp di soxna su baax soxna su sell soxna su gëm diine ji soxna su bëgg sëñ Tuubaa nag parce que man moom doon nañ jokkalante ay waxu téléphone yu yaato yaatu yaatu yoo xam ne daanaka am na yu tënkante yu bëri ci ay affaire de téléphone donc nit ku baax la te booy wax ak yow dangay xam ne kii nit ku oyof la dara yitteelu ko lu lislaamam at diineem at borom këram donc ñu ngi ñaan ci barkeb yonent bi yàlla na ko borom bi teeru ci àjjana yi gën a màgg ci barkeb Serigne Saliou Mbacke ñoo ngi ko koy ñaan Bougane aussi boo amoon loo koy xelal donte métti na trop lan nga koy xelal situation bi fu murit la murit la te murit am na nu muy doxee xam na ko yàgg na ci yoon wi ñu ngi koy ñaanal mu am xolu muñ te yor njaboot gi rek xital leen ci yoonu Serigne Serigne Serigne Touba ak yoonu Seydina Mohamed bi loolu moo am solo waaw. mais yow sa génn da nekk liberté provisoire wala dañ la non lié la wala. non non ñu ngi ñu ngi sant Serigne tubaa ay tuuma la woon ma tegal te juge bi seetal na ko ba mu seet dossier sans dossier bu amul benn benn benn werante lañ ma. lañ ma la bàyyi librement. waaw waaw tawfeex sant nañ si. waaw du ñàkk dinañ si. waaw incha allah incha allah. dinañ ñëw dinañ ñëw xaaral. sëñ ñu ngi lay nuyu. waaw ah, ngi leen di ziar bu baax. nga présenté wu rek yow yaa fi indi ndongo yi macha allah ñu eh, jàng fi lu am solo ci waar alxuraan wàcce fi ay kaamil daanaka juróom-ñaari kaamil ci diir bu gàtt eh, macha allah lan ngay wax ñu bàyyi la nga présenté wu. waaw di wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un di jaale mboole ñëpp rek di jaale sama xarit Bougane Gueye eh, ndax moo waral ma ñëw fi ànd ak xale yi jàng si kaamil wala di sama wóoleeru sama di yàgg. moo tax euh, ma bàyyi li ma def def ñëw indi xarit jàng kaamil ndax sama diggante coon seek la woon ma tey jii bugaan mi ngay xam loolu ñuy jëflante ci bëri kon bu amee naqar yoon la ma indi daar yi indi leen fii ñu jàng fi kaamil loolu moo a sunu teewaay di ko jaal ñëpp di wax soxna si tamit comme ni ko ñëpp waxee ku baax la ku yiw la woon ku bëgg lu baax ku doon jàppale bugaan ci ci ci rajo beeg télé beeg yëpp la ñi miin nañ ko xam nañ ku baax la ku la baax la yàlla na ko yàlla yërëm te xaaral ko àjjana jéggal ko ay rëcc ndax mbooloo mi nga gis fi yëpp rek ka war a ñoom ñaar ñi seq ngir ñoo baax ku bugaan kum jàpp jàpp na la xale bu ndaw xale mag la yemal ñëpp la am yitte kon tey bu amee eh, dëj bu mel nii ñëpp dinañ ci ñëw di ko jaal ñëpp rek. waaye rafet nag. xale yi li ñu fi jàng macha allah euh, set na te macha allah yenu na maana day rafet ñu bàyyi la nga wax adresse su daara ji loolu moom bu dee publicité sax ñun dañ koy gàddu macha allah. waaw ah, kay jërëjëf xam nga nit moom bu xasee faatu deseer ñu ko leen du ñaanal ko. comme que lii mooy sunu kóolé rek moom. gaañoo ñu indi xale yi jàngal ko kaamil xale yi nag daara ji mi ngi nekk Kër Massar ak Parcelles Jaxaay. fan la nekk daara ji nag. Kër Massar ak Jaxaay. Euh, Kër Massar Jaxaay ak Parcelles Assainies unité 9 foofu la nekk. genre crèche la quoi. déedéet internat la ñëpp fa lañ dee quoi xale yi boo xoolee ñoom ñëpp fa lañ dëkk seen doom parce que li fi xale yi jàng waaw incha allah waaw 78 133 39 32 boo ci woolee lool Serigne Aliou bëgg nañ lool mi ngi noonu di Serigne Aliou moom moo indi woon ndongo yi nga xamante ni ñoom ñoo fi doon jàng alxuraan depuis boobu ba léegi daanaka Babacar si si eh, juróom-ñaari kaamil wàccee nañ ko fi si diir bu gàtt di lu am solo moo tax ñu bàyyi ko eh,